asalaamaaleykum téléspectateur Ngalam TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen si stade la taali bi Serigne Saliou bi nee naa la miin ngeen kanamam ci écran bi rawatina nag bi nga xamante ne tey El Gueye fi la ñu ñëw fi ñu fi ñëwee nag heure bu ñu fi ñëwee rek lu bee bees rëq heure bu ñu fi ñëwee rek ndaanaan bee woote muy a bitig jàppale moom mi nga xamante ne moom moo gën ci yow mi nga xamante ne macha allah ay réew de la sonal yow mi nga xamante ne dangaa cere nee naa la euh, maanaam moo raw góomu judduwaale boo ko amee amul dara lu koy dindi mais Mouna moom am na garabam dalay daal di dindil cere bi macha allah yow mi nga xamante ne dangaa ñuul bëgg a xees xeesaay bu gaaw gaaw gaaw da ngay seet si Mouna Boutique jàppale yow mi nga xamante ne dangaa mën bëgg a maintenir sa wala sa teint noir da ngay seet si Mouna Boutique en plus tamit am na surprise yu prix yu doy waar yéen ñiy waaj gàmm ay ci El Gueye topp ma ci biir ñu daal di jàkkaarloog Mouna Boutique jàppale saa su ne rek uh, bu rekkee dëkk bi day daal di day daal di yëngu nee naa la bu wootee rek moo la wootee ku nekk gis na ko ci màggal gi mu daal di wàcc ay greffage yu mucc ayib ay musóor yu doywaar waar grand mbubb yu doy waar prix yi nag moom dama koy bàyyi moom mu daal di len detail ben par ben lo dan jinde 100000 mu wàññi la ko di lako defal 60000 lo dan jinde 35000 mu defal lako 28000 neena la mun naa moo mën moo doole te mo gëna fété xalé dama koy bàyyi mu daal di nuyonté ak yeen téléspectateurs yu ngalam yi dama len di bàyyi taalibi Serigne salim nuyo ak yeen mun naa ngi lay nuy di jaar. ma ngi lay xey bu baax baax euh, di wax ni billahi shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ma ngi nuyu wa adina di nuyu waa Ngalam TV yëpp wax dëgg yàlla di nuyu tamit képp ki nga xam ne yaa ngi toog euh, di seetaan Mouna Boutique donc mm-hmm. fii ci télévision Ngalam TV mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah te di la jaajëfal Mouna ñi ngi lay jaajëfal ñun waa Ngalam TV yëpp rawatina ñi nga xamante ne à chaque fois ñoom ñi ngi escorté si euh, scène bu mag bi di Ngalam TV mais Mouna lan mooy secret bi su ma ñëwee fekk la nga xees jongo ma ñëwaat fekk la nga yor te noir jongoma ba man daal comprendre ma waaw xam nga man moom donc euh, li may wax chaque jour rek man damay jaay produit teint marron. Mhm. damay jaay produit teint clair. damay mélanger ñaar yëpp. man mhm. su ma bëggee am weex ko damay damay mel nu ma neex dama damay mhm. euh, xees. bu tranquille su ma demee tamit ba a jotaat sama teint marron teewul dama ni ngeen ma fekkee man noonu lay doxee. mais donc euh, basé ma ci xees rek wala ci ñuul rek parce que ñaari produit yëpp lay jaay. ma leen wan ne leen kat sama produit boo ko di bëgg xees da xees. boo ko bàyyee tamit bëgg amaat sa teint marron da nga koy amaat tranquillement te doo am benn problème. ma gis mm. gars yi ñu ci bari dañuy jënd diwu xeesal diwu diw diwu pas ñu toppatoo seen yaram diw rek lañu yaakaar ni moom ay affaire mm. ma gis fi léegi ay clients ñoo xam ne dañu dugg nga gommage leen seen yaram. Mm. waa xam nga gommage moom donc euh, dafa bokk ci liy tàggat xeesal. Mm-hmm. boobu dafa dafa bokk ci li koy defar. dafa bokk ci li nga xam ne mooy tax sa xeetal di gën a mën a mucc ayib mhm. parce que nit boo jëlee say say produit rek te doo hydraté doo dooy gommage sa yaram di jël sa mhm. temps di defar sa yaram ba mu tranquille mhm. loolu gëwma nga am xeetal bu tranquille donc nit boo jëlee décision da ngay xeetal il faut nga ñemee nga engagé donc ngay defar sa yaram di gommage voilà di innover donc di jël ay produit yu am qualité di ko di loolu ci am solo donc bañ a jël yenn produits yi nga xamante ni xañ na prix bi moom moo leen ci rek ba tax ñuy euh, ñu koy jënd chaque jour rek booy xeetal nga jug ne da ngay xeetal toppatool sa peau ba nga xamante ni après ba bàyyee noo ci benn problème di nga mën a jotaat sa boo ko bëggee tamit nga continuer sa ne mooy yëngaloon jamono mhm. muy euh, mhm. ci def benn promo bu doy waar. Uh-huh. da nga benn savon noir bu 8000 ma may la beneen savon noir bu 8000 tegal la ci. dégguma la la nag. maanaam nga sa ñaari potu saabu ñaari potu savon noir ci bay ci francs te savon noir nag donc loolu moom client yi moom jaratuma leen koy présenter. ñoo ko bëggal seen bopp parce que ko. Mhm. muy ki am vergeture muy ko am cere muy ki nga xam ni moo bëgg a xees xees bu tranquille muy ki am problème mu po nga xam ne du xees wala moom dafay rouge te savon noir li ci gën a neex dafa amaale gommage. léegi nag ma def ko promo ci gàmmo gi di la jaay benn savon noir may la beneen savon noir en tout c'est à 8000 francs xanaa loolu mooy neex a neex a neex <laughs> <laughs> li may wax à chaque fois naa la boo ñëwee ci Muna mhm. lam lay may moo ëpp sax lam lay jaay la muy mhm. jëflanteek ay ay ay teraanga ci ay clientam mhm. macha allah à loolu tamit ñi nga xamante ne Muna dañoo bëgg a xees xees ba xeesaay bu gaaw ma dégg na yaa ci mën waaw xam nga man moom li may wax chaque jour man ku ba fekk ma fii li ma lay wax mooy ñaar yi de un ah, dama lay assuré ne la kat li ngay faj lu nii mën naa koo faj bu dee cere la mhm. assuré ne la kat bu dee da nga bëgg a xees mën la xeesal te doo ci am benn problème mhm. ah, bu dee da nga bëgg a xees boo dama lay am ay produits yu ma lay tegal naa tegal lu ma lu mat huit lait de corps mhm. huit savon huit crème de visage nga tànn yi nga ci bëgg ak yi nga xamante ni la ci arrangé nga jël ko am naa fi benn gamme bi nga xamante ne moom laa tuddee gamme cérémonie. Mhm. mooy pour ñi nga xam ne am programme. kon yow bokkook ñi nga xam ne dañuy naxee naan 3 jours nga xees wala 2 jours nga xees. weex tàll loolu moom du ma koy def te sib euh, am ci li nga bëgg man loolu moom dama lott ci di ko wax ne wax mhm. na ko te itam na ko ba tax ma ne 3 jours mën na ci xeesal nit mais man boog duma mhm. la ko promettre aussi mais dinaa la wax ni la kat sa cere mën naa ko dindi sa vergeture mën naa ko dindi ou bien tamit mën naa la xeesal produit bi ngay jël nga boole ko ak bii ak bii ak bii moom moo lay xeesal loolu mën naa la ko mhm. ne ñoom ñoo am ay cérémonie ñoom ñoo a mhm. allah te lépp a ngi ci biir dafay am diw am savon crème de visage ñaari lait de corps lay am macha allah. ñaari diw lay am donc lotion baa ngi ci biir savon noir gommage yëpp ngi ci biir gamme bi c'est à 35 000 francs gamme cérémonie ah xanaa loolu moom xaar ma ñëw kañ laa am jëkkër gaaw leen ñëw <laughs> mais macha allah mu nekk loo xamante ne nii mun a à chaque fois damay wax ne da ngay jàppale jigéen ñi ci seen wàllu yaram bu baax a baax jàpp tamit ci économie bi nga xamante ne jigéen ñi am na ci bari ñoo xam dañuy bëgg mais seen doole du demee noonu mm. mais ak yow rek tout est mm. rawatina ñi nga xamante ne dañoo cere mm-hmm. dañuy wax ne cere moo raw góomu gu judduwaale neexuta neexuta neexuta neexuta faj mm. ma gis ay nit yoo xam ne depuis parcelle mm-hmm. ba Pikine mm-hmm. tubaab maa fekk la bëgg Mm-hmm. te li may wax dara jaralu ma ci ay wax lu dul dëgg ma gis ay nit yoo xam ne tere traité nga leen cere mm-hmm. ba macha allah ñi ngi dox ñemewuñu woon sol yenn yëre yi mm-hmm. ñemewuñu woon génn ci mbooloo mais léegi macha allah fu ñu leen woo ñu wuyu man euh, donc euh, li may wax chaque jour man dama lay bàyyi ba nga ñëw ba toog man client ci man di jooy ni ma dama dem fii dama dem fii lekk na sama xaalis nangam ak nangam dama naan la téyel sa xaalis yow nga téye ba ma faj la ba pare nga doog ma fay ku mën a koy def barki Serigne Saliou rek laa ci jël client fay ñew fi ni ma xamni ki dafa dafa dafa lott dafa son te nax nañ ko ba xalé da na ma del bàyyi di def loolu man ko teye sa xay sama suma la faje ba sa cere deñ ma jox la ay produit ba sa cere deñ nga ñewat fay ma bu de ko ragal yalla nga ñewat fay ma man samay produit yi donc toj damaa passé fu fu ma naan mën na ma lii wala mënuma lii mhm. loolu dépassé naa fu koy waxee mhm. parce que donc sénégalais tamit yàgg naa ak ñoom xam samay produit bu baax a baax loolu du tey ça fait longtemps ñu xam samay produit yi ma yàgg dindi ay nit ay cere ñu teg seen bët mhm. dindi ay végétaux ñu teg seen bët jaay nit produit yi ñu teg seen bët te boobu ba léegi nag mosuma ci am problème ndax fii àddina la te Sénégal loo te boobaak léegi nag mi ngi bëgg a yàgg dëgg la wax dëgg yàlla kenn gisagul dara li nga xam ne lu négatif wallaay mhm. mm. ah, nga xamante ne sama classe bi nga xam ne dañoo graissé mm. fekkoon naa fi machine boo xam ne depuis parcelle mm. ba bi ma fii dama fekkoon boobu moment boobu installé woo ko pour fii mm-hmm. ana machine bi bu machine bi déjà installé nañ ko ci bi mhm. ni amee parcelle noonu la amee tamit ci boutique bi macha ne dafay daf bu fekkente ne da am biir da la koy wàññil bu dee da nga euh, bëgg a wàññi sa yaram aussi tamit daf lay wàññi yaram bu tranquille donc am na tamit machine pour vergeture machine pour vente ak machine bi nga xam ne tamit boobu machine bu bees la dèjà génneegu ma ko mooy pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a yokk seen melokaan lu ci mel ni bëgg a yokk seen ginnaaw ak yokk seen i fet ak seen i ans mu naan nëbbal boobu dencal dencal ma boobu <laughs> ma boobu yow waxal ma ci vergeture bi mhm. ak bi nga xamante ne moom mooy wàññi biir ndax li nga wax ni dafa tukkal jamono mhm. léegi boo woowee romb waa ji du la xool day génn di xool xale yi am daaguwaale ak yooyu waxal ma ci vergeture bi mhm. ndax dafa nekk problème yu jigéen ñu bari rawatina fii ci seen biir cër maa ngi ci joxe benn piling bu nga xam ne pour vergeture la boobu nag deux jours ngay am résultat yooyu peeling bi quatre fois nga koy def par jour da ngay utiliser quatre fois par jour nga def ko deux jours dafay peeling sa vergeture yëpp daf koy dindi daf donc léegi nag boo ko dindiwee ba pare dafa am benn crème bi nga xam ne moom mooy ànd ak produit bi crème boobu moom lañ lay jaayee cinq mille francs ok jaayee la peeling bi en tout dafay nek 17000 francs donc nga meuna dindi say vergetures tranquillement meun di sol yele bu ronex te bo legui nekkul lu cher senegal fi limay wax rek may len man produire bu ngeen beug mën naa ko indi da tax dara du ci cher man tay ba Serigne sallu la wa ah, dafa leer de ma xol niko sama mbok talibe yi bëggee ma defé ko non di xol niko senegal yi bëggee tam ma defé ko non mhm. du ma jaay benn pour dara li nga xamné dama koy cher wala may ak sama prix duma def lolu mhm. voilà tamit ku yakane tamit boutique mu naa boo fa duggee ay prix day yokku day day cher wala dara fi ko fi dugg ak lo mënti indale ak som bo mënti indi mën nga fi am produit. boo xefee sax mu may la. boo xefee sax mu may la mën nga fi am produit mën nga fi am yére mën nga fi am greffage. dafa mhm. xam nga ne greffage yoo jaayee benn boule 7000 francs laa ilaaha illallaah bi ma gisee ci màggal gi damaa yuuxu dama ne dëgg mënul ne dèjà ma ngi yaakaar foofu laa yem mën leen prix bu ñu ñëw ba mu tranquille dafa leen ci mu nekk 32 mu nekk lëngër 40 lëngër 40 ma jaay leen ko 2500 benn frontal lay doon te loolu donc ku a jàppale ak tamit dafa metti sunu yaay yi wala boog sunu sœur yi donc lu baree baree bari ñu ko te bëgg nañu nag ndax bëgg nañoo rafet bëgg nañoo jongoma mais te xañ na ak ni jamono di doxee léegi moom moo tax kon képp kuy jaay rek war nga a wàccee nga xamante ne mm-hmm. ñu bi nga xamante ne ñi nga xam dañoo bëgg a yokk seen melokaan mu naa mm-hmm. ndax dangaa laal sànq fu am solo nee naa la jamono ji ñu toll nii nii nii nii nii mm-hmm. ci concurrence boobu la Sénégalais yi toll ba mu leen di jaral ñuy dem ci yeneen réew yow à chaque fois su may su may su may su may su may ñëw ci yow damay feer ndax dama fi fekk loo xam ne damay wax ne néew ma du ma ko gis feneen leneen mm-hmm. mais du yomb a gis wala ci yow laa koy njëkk gisee muy machine ñu ci bari na jox loo xam da koy utiliser sa ginnaaw wala looy naan te loolu yëpp mën na am loraange mm-hmm. mais yow à chaque fois da ngay indi machine boo xamante ne da lay dimbali yow jigéen ba nga bëgg li nga bëgg nga mel mm-hmm. te lu andi benn loraange moom na waaw xam nga machine ni moom loolu traitement la donc bu dee machine vergeture bi ngay laajte boobu par traitement la chaque 15 nga ñëw jël si rendez-vous donc boobu nag da koy faj da mhm. mhm. dafa duré un ah, loolu day tax da sànni sa xaalis c'est déjà doo am li nga bëgg mhm. da ngay ba say traitement jeex ba pare nag nga doog xool naka lay mel te man mi tamit donc toog fii ne nekk ma fii rek pour di wax di bàyyi damay bëgg lépp li may wax lu nekk rek mu nekk dëgg ba ku ñëw ci man fekk ko fii parce que man noonu lan ma yaree dëgg ku ñëw ci man nag li may wax lu nekk rek loolu ma fiy fekk bu dee machine vacuture bi la boo ñëwee durant bi un mois la chaque 15 jours nga ñëw jël si rendez-vous. Mhm. c' ça le chaque une semaine dimanche nga ñëw jël si rendez-vous ba mu mat un mois c'est vergeture daal dañ nga tàqali ko vergeture. Mhm. bu dee aussi tamit machine ventre plat bi la boobu da ngay ñëw chaque une semaine nga ñëw jël si rendez-vous tamit moom tamit durant bi un mois lay doon nga tàqali ko ak biir. Mhm. doo biir. Mm-hmm. booy tamit machine bi nga xam ne mm-hmm. a yokk seen melokaan a yokk seen i ginnaaw ak yooyu mooy tamit par traitement la mm-hmm. boobu traitement bi yàggul 15 jours la mais boobu moom génnagul boobu génnagul kon nag gars yi xaar leen nee naa la lu bees tàkk ak Mouna <laughs> Boutique saa su ne rek ngeen gis lu doy waar nee naa la moom dalay indil loo xam du benn yoon ay Thiel Gueye expliquer man damaa fu ne damaa békk ndax li nga wax dafa doy waar à chaque fois ne nga gis loo xam ne day lor doomu aadama yi nit ñi nekk ci di leen jox lu ñu utiliser wala nangam hmm. yow nag saa su ne luy jariñ jigéen ñi te du leen lor nga hmm, indi hmm. ay ci mun naa ñu ñëw ci promo màggal gi nga xamante ne gis nañ la nga def ay greffage fa seen ne ko jëmbal nag ba gàmmu gi ba gàmmu gi waaw am nga man moom chaque jour rek man mën naa jour sama boutique day am promo man chaque jour rek damay def promo mais nag événement yokk def promo yi mhm. donc màggal gi maa ngi doon def ay greffage doon ko jaayee bul 7000 bul 6000 ay bul 2500 wala ma def prix jaayee ko 50000 francs donc nag te nag ci gàmmu ci gàmmu gi ay yeneen i bagage moom mooy génnaat ay yeneen i modèle greffage ay yeneen i affaire yeneen yeneen i mbubb ay yeneen i produits cosmétiques yi nga xamante ni yëpp maa ngi koy préparé pour fëte ne ko def promo. macha allah na ko ñëpp xaar. Mhm. waaw. yi daal na ñëpp xaar. bu gudd bu gàtt frisé. bu lépp dina am incha allah rabbi ci gàmm wi comme ni ngeen ko gisee woon ci mm. màggal gi. Mm. ay ci mun a ana parfum yu neex yi joxoon nga ma fi benn parfum boo xam ne su ma ko parfum oto bu ma dugg maanaam man maay nekk bës bi. <laughs> xam nga ah, parfum moom. Mm. donc man maa ci toog. Mhm. parfum yi moom euh, boo bëgg ba pare man sama parfum dama koy wàññi. Mhm. man parfum yëpp boo bëgg boo ñëwee am na benn loo bi nga xam ne benn gaam laa koy def di ko jaayee vingt cinq mille huit parfum vingt cinq mille ak parfum yi ma fekkoon yi am classe yooyu noonu yu am classe benn gaam la bi nga xam ne dañ la ko defaree la ko sa turu soob ak yëpp ba ni dafay ko jaay ay cinq mille ak 6000 nga xamante ne mi ngi fi. macha allah lèvre rose it nga teg ci la. rose tamit donc loolu moom xale yee ko moom xale yi dañuy ñëw ba ci man fii naan ma dañu bëgg lèvre rose par ndeysaan di ko jaayaat parce que man du ko nangoo sax jaay détail parce que du ma bëgg a yàq marché jàmbur moo tax may def ay lèvres roses donc di jël di jël huit lèvres douze lèvres roses di ko jaayee cinq mille francs douze lèvres roses yu jógee ci mun a bitik jàppale ay lèvres roses yoo xamante ne macha allah mm. dégguma di ko jaayee cinq mil loolu prix en la sama classe yi nga xamante ne dañu ba pare lèvres roses yi dafay amaale yeneen trois gommages bu la jaayee neuf yi trois yi dafay nekk gommage loolu prix en gros la pour ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jënd jaayaat macha kon ñi nga xamantene dal xey nañ naan awmu luma def awmu luma def mun naa yombal na leen même saabu sax même saabu dama ko gëné en gros même greffage yi rek mhm. donc man xam nga greffage la ñëk jaay kani produit bi nga xam nga lolu aha greffage la ñëk jaay kani produit bi cosmétique inchallah mais musuma ko jaay comme comme détail dama ko don jëli suma suma jëli jé greffage su ñëwé ma jaay ko euh, en gros comme yene cosmétique nga xam ne ñoo ko jënd war ma jaay leen ko en gros mhm. moom laa njëkk jaay kani produit cosmétique sama ko tey ji boo ñëwee carton yi nga fay fekk ni ñi jaay cosmétique ñepp ñeen ñi nga xam xamé nañu ma ta xamna leen mhm. ma leen koy jaay ah, da ngay jaay ñi nga xamantene dañuy jaayaat manam ñi nga xam dañuy dóor dàkkewaat yow bu ñëwé ci muna dañ ta nga ci japp bu baax baax ñu nga prix yi ni mu yombé mhm. ni ba ñepp diko wax mhm. bu dé engrais bi ci lay gëna yomb inshallah bu dé prix engrais ci lay gën wacce prix yi nga xamantene ku ci nekk da nga ci am lu nga ci am tok soroxu bu la nexé nga ñëw koy prix bu la nexé nga def ya xam li nga ko bëgg def yépp nga jël jaay waat macha allah te da nga ci am da nga am macha allah dara sooba yàlla. Mm-hmm. ak naa rek euh, tout est possible. à chaque mm-hmm. fois dama koy wax. Muna tamit ñi nga xamante ne ñu ngi waaj gàmm gi. Mm-hmm. màggal gi gis naa ay xale yu def xeetu grand bu yoo xam ne xeetu rob yu mel ni bii nga jam nii. bi nga dugg see sànq damaa miir <laughs> loo ñu préparé ci gàmm gi tamit. gis nga gàmm gi moom maa ngi waajal ay grand bu xam nga tijaan tamit ñoom macha allah ah. maa ngi waajal ay grand bu yu balaa yu doy waar maa ngi leen waajal ay musóor ay musóor yu doy waar macha allah nga ay dàll ay takkaay yëpp yi nga xamante ne nii rek euh, sama mbokk tijaan yi dañ soxla yëpp maa koy waajal bu baax a baax a baax nga xamante ni dañu mën a solu jongo ma mhm. ba pare nag ak ay produits yu am yu am qualité savon noir bi may def promo nii ak les mhm. décor jamaa bi loolu moom maa ngi koy digal ni yaa ngi jamaa bi promo la les décor jamaa promo 8000 la bouteille 500 ml la bu mag la 8000 francs la savon noir bi jënd benn savon noir ma may la beneen savon noir moom tamit 8000 francs la. Mm, kay neex a neex. waaw donc promo moom maa ko def. ci gàmmo bi mhm. pour xale yi nga xam ne bëgg nañ defar seen yaram macha allah xam nga xale yi lu mel ni màggal Touba mhm. gàmmo yooyu la mën a wane woo wane seen mhm. dëgëre bopp wane seen doole mais avec ko yooyu noonu en plus bu fekkee fii nga bëgg a defaroo tamit xale yi defaral la macha allah ba nga taal boutique allah dafa complet nga boutique Mouna da nga ñëw bëgg diw nga am fi diw bëgg saabu am fi saabu bëgg dal ñu jaay la dal nga bëgg solo rafet ñu yóbbu la ci place bi ni wé nga solo rafet xol yéré bi nga bëgg maquillage tamit ka noonu ñu maquillage la takay kii jaay la takkaay greffage non dafa complet manam jigen bi nga xam dafa bëgg jonga mom mom dañu dugg rek tok ni man ka dama bëgg jonga jongama damaa bëgg a ñu la jox yéré de 1 ñu la jox greffage ñoo lay maquillage defal la say wé defal la pédicure manucure defal sa yaram gommage la bam tranquille nga solo génn rafet <laughs> mais léeg-léeg tamit doo ci jànkoonteeg ay risques yoo xamante ne nii euh, sa diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ngay jëflanteel euh, ku ne xam na Sénégal fu mu toll nii dafa dafa dafa doy doy waar goo xamante ne yàqante bi lan ngay wax ñi nga xam ne ñi ngi site internet bi yàq doomu jàmbur yoo xam ne xamuloo ko xamoo lu ko ndayam bootee mun naa loolu tamit bëgg naa balaa ñoo jeexal. non man moom wax dëgg yàlla soxna si man dama ragal kuy kuy kuy kuy xaste ou bien kuy wax leneen. Mhm. moo tax man dama réservé wu man su ma xasee ba wàcc sama moto ba dugg fii ba génn euh, ñibbi mooy tax ma génnaat taxaw sama buntu place bii sax war a ñibbi mooy tax ma génn taxaw sama buntu place fii nag lépp fi la may fekk nga Sénégal la nekk. <laughs> donc euh, yi ma mën a lijjanti faj ko dama ko lijjanti faj ko yi ma mënul dara dama damay toog di mais su ma xasee ba dugg ba toog aw ma feneen soxla fu dul fii ak samay cliente ba guddi ba war a wàcc génnaat dugg sama oto dem ñibbi sama kër tamit kazaalika noonu mais nag Sénégal moom loo bëgg a xam fee xam fii nga toog nii fi la fi ma lépp di fekk. lii xew ak ak yi ni wax ak yëpp mën naa ko xam ci fi ma toog nii te danga naan pat boole pat ak organisé amaana yi ma xam wala boog yi may dégg wala yi ma mën a faj dafa bari mais tamit nit ki donc doo xam lépp wax lépp bu la yàlla dee dimbali jarul ngay tontu déedéet jarul ki yàlla di dimbali jarul muy hmm, tontu jarul muy tontu ki foo fekk ku bari wax rek suñu borom tegu ko loxo exactement donc hmm. nit ku baax tamit il faut nga yaru xanaa xamoon ne réewande lu yomb la hmm. nit ci minute mën nga cee reew ba dof dëgg la mais yar loolu ci yow lay nekk dañ koy def ci yow tàggat la ci nga nekk bona ñu yar la nga xam àddina mën a composé ak ku nekk man nii ma toogee ne ku ñëw ak kanam boo indi mën naa nekk ak yow mën naa composé ak yow mhm. moo xam nga nekk nit ku ku bëri melokaan nit ku bëri jikko wala nga nekk nit ku doy boo ñëwee teewul ci minute rek mën naa la cee yar mhm. defaraat sa jikko nga xam ne aduna kat nii nga war nekkee ak nii nga war a defee lan mooy secret complicité euh, Mouna ak xale yi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale ci bitig bi ndax saa ñoom tamit gëm naa ni Mouna dem saa Mouna ñoom tamit dund dem waaw xale yi moom wax dëgg yàlla mention spéciale ñoom ay jàmbaar lañu nga man tamit ku nekk ku nekk ku nekk lay jël man su ma nekk ak deux jours rek xam naa ndax yow mën na maa continuer ak yow ba pare dama lay jàngal tamit li nga xam ne mooy àddina jàngal nii nga war a waxee ak nit ki nii nga ko war a defee nit bu ñëwee mer nii nga ko war a accueillir nii nga war a waxee ak moom parce que yow jaay yaa bëgg xaalis mhm. kon ku nekk ngay gis façon personne bu nekk ngay gis da nga gis ku doy war nga gis ku sik nga gis ku kon ku nek nga gis mais il faut que tamit yow mi nga xamne ya tok ubi sa boutique ne kat xay lañ jënd ni ngi ñew ci yow ta ku nek ak fam yero ci dëkk ba mu yaroo wala melokan biñ def ci mom mhm. yow mi nga xamanteni ni xañ na xala xalaat nga ni sa jikko baxna mhm. yaay nek nit donc ku ñew nga ak yir ko tok ak mom kat tranquille waxtaan ak mom mhm. xalé nak mom wax dëgg ya ñoom ñëpp baax gis ma ci kenn ki nga xamanteni donc ku yor ku yor benn melokan nga muy ñi nek fi ñi ngeen fi fekk ak ñi nga xam ñoom ñoo nek ci yeneen boutique yi ñoom ñëpp a baax macha allah mais nit dal da ngay yaru parce que nit booy xaste ak ku ngay mën di xas tey ji boo xoolee ci sa famille am na ku ci mel noonu. dëgg la tey ji boo deewu tiitaro ay oto ay kër boo xoolee ci sa famille am na ki nga xamante ni bu bëggee dem danga koy may paas bëgg a génn dañ koy may paas. dégg naa dëgg wér. kon yow mi nga xamante ni dangaa nekkoon ci ran bi nekkoon ci xat-xat bi nekkoon ci fu metti ci fu jafe yàlla dimbali la ne coppet teg la fee. di la di la teral. Mm-hmm. nga am say di am say oto di am sa mhm. boutique di am say oto di am lépp macha allah donc yàlla dimbali la ne la kat yow dama dama laa fësee ne teral kon kooku xam nga lan nga war a def jaamu yàlla mhm. ci ni mbindeefam yi nga xamante ni moo leen sàkk ba pare def leen ni mu leen def nga jaamu ci yàlla leen fësee ne teral di leen bu amee may leen su amee lu koy waxtaan ak waxtaan ak ñoom bul ñàkkee sa kenn te bul jànni kenn nit baax bu la yàlla teralee nga sonn yàlla jékki-jékki dimbali la teral la noonu nga war a doxee mais doo xaste moom képp ku koy def ku nekk xool ko ba ren di déwén aji mun naa ñu gis la mm-hmm. ci màggal gi nga daal di def ju doy waar mm-hmm. mais mun naa yow nii nga nii nga nii nga doy waar ndek <laughs> waaw xam nga màggal Touba moom mm-hmm. man mooy sama yitte sama pasteef yëpp mooy màggal Touba parce que man damaa juddoo Touba yaroo fa màggee fa jàngee fa alxuraan xamee fa lépp lépp lu ma xam rek donc Touba laa ko xamee euh, nekkoon nag ak mag mu baax muy sama maam mu yar ma defal ma lépp ci àdduna man Touba dem naa fa ba ñëw te sol ma benn yére bi nga xamante nii donc comme ni ko defee la ndax damaa yóbbu woon ay nit. mais gis nañ la ci liggéey bi jàpp bi. ak ñi nga xamante ne passé ak yooyu noonu. passé waa ak bûche yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ak yëpp. Mhm. lépp rek ngir bëgg donc euh, yokkaat sunu taalibe ak bëgg a namaat sunu pas-pas. lépp moom moo ko waral. Mhm. ndax ñun Touba la dëkk man Touba laa dëkk man Dakar fi liggéey rek ma fi indi. tey jii bu ñu waxoon ne kat ku nekk fa nga xam na nga fa dem man dama jël samay bagage yëpp dem Touba nag foofu laa xam voilà li sama lépp foofu la fa laa jàngee alxuraan fa laa defee lépp lépp lu ma am rek Touba la ko amee. gan yi ñëw nga dalal leen jox leen paas waaw moo yóbbaale ay gan. donc mhm. euh, ñi nga xam ne <laughs> ay nitu Dakar lan <laughs> donc moo yóbbaale leen Touba xam nga il faut nga leen toppatoo. il faut mhm. nga leen taxawu. man dama lay fexé nga solo di lek di nan di solo lolé la sama cameraman ba demoon na El Gueye nee ma sak at ca eh, ci ci muna lay dal duma waccé wàccati fenen donc dama lay fexé nga lek nga nan nga dalu nga solo ma lalal la xam nga may may la xaliss de teral la dal parce que ma xam <laughs> ndax man ki ma yar mo mel nonu sama mam bima yar ku nek xam na ko Touba këram day fess del parce que mom da doon yëngu ci walu ñaan ci walu ñaan ci baati nag yooyu ñun gédé gédé gédé la ni dal yeen ngi fu neex sha allah sha allah gis nga ko nonu donc mom muy yëngu ci walu euh, ñaan ci walu affaire yoon muy Awa Ngom donc euh, maire Awa moom ku nekk xam na ko Touba. ñu bare sax xam nañ ko même bu du ñu bare xam nañ ko feneen muy sama maam yar ma donc yi nga xamante ni moom la doon dimbalee jàmm yàlla yi ku amoon soxla boo la ko ci baatin donc lu baree bari bari nekk ci moom macha ay doomi tuur comme lu baree baree bari na ko di bàyyee xel maanaam la ca maam sëtu koy jël waaw mu ngi noonu <laughs> donc lan daal lan lan màggalee màggal mhm. àndee ko ak suñu mbokku taalibe yépp maa ngi sant nag képp ki nga xam ne yaa ñëwoon ànd ak man parce que Touba moom boo xoolee sax ñun la kaay dal ak man mais nga am confiance ak qualité ne kat lay dem dalali te xamoo Mouna gisoo ko fudul ci télévision ou bien nga gis ko ci internet bi nga ñëw dal man nekk ak man sama kër macha allah donc defandoo ak man lépp ñii di jàpp ci liggéey bi ñuy jàpp ci gan yi ñuy jàpp ci lépp lool maa ngi sant képp ki nga xamante ni yaa àndoon ak man màggal Touba maa ngi la ci sant bu baax a baax mention spéciale na ki nga xam ne mooy Médoune Médoune daa yi lépp moo ko defar macha allah moom ci boutique bi lay liggéeyee taaliba cheikh la nag ci boutique bi lay liggéey nekk taaliba cheikh may dem Touba mu ànd ak man ko njëkk a yóbbu Touba ndeysaan maa ko njëkk a yóbbu mu àgg nag futteeku jël jël yéreem tegee ne macha allah soluwul dem dem nañ Touba ba ñëw te solul yére macha lépp rek ngir bëgg maanaam toppatoo gañ ni defaral leen macha allah lépp bëgg rek lépp jag. kon maa ngi day wane complicité bi nga xamante am na ci diggante Tijaan Murit Laayeen yooyu noonu ñun ñoo koy kii rek mais nekk bu baax képp daal ku nga xam ne àndoon nga ak man màggal Touba. Mhm. maa ngi lay sant bu baax a baax macha allah. di leen wax ne tamit sama mbokk Tijaan yi invité leen ma ci gàmmu bi <laughs> invité leen ma waay bu dëgg ayca kuy dalal ah, mun naa. kuy dalal mun naa waaw duma fa jënd kër léegi dalal la fa. <laughs> Lam TV nee naa la man xam nga damaa xaw a yara di koog sama sogo mais bu ma jàkkaarloog yow damay yaru for force la <laughs> ndax macha allah ki ngay jàkkaarlool moo nekk nit koo xam nit ku dal te loolu lañ soxla ci doomu aadama lan ngay tàkk tàkkalikoo ko waa euh, Ngalam TV. waaw xanaa tamit wa ngalam ci moom ku ne xam na ni ngalam ci ak muna a bitik jappale waaw sama yef la ba pare ñoo far ñoo bokku lepp man sax bi ngalam TV laa bokk wallaay ndeysaan émission bo ni mut la waxtan ay ndika ko fa na ko fa wutal du dëgg ñun ñoo far ñoo bokku lepp wax dëgg yàlla yow tamit nit ku baax nga yow kenn gënu la soxna ay tamit pare donc ak sama chamagne bi ni donc yeen ñëpp ma ngi leen di nuyu ngalam TV nak moom moy télé bu gën bi mm-hmm. de un man xam naa ci dara ku bëgg sa produit jar mm-hmm. ku bëgg ñu lay seen ku bëgg ñu lay gis foo waxee ñu dégg la ñëw seet si Wangalam TV. macha allah secret bi moom man maa ko jox sama mbokku jaaykat yi man maa leen ko may noonu rek. woo leen waa Ngalam TV ñu ñëw ah, ci yéen rek defal leen émission macha allah ngeen xool dégg ngeen voilà ci ñi koy jaajëfal bu baax a baax nee naa la nit ku yaru la nit ku am dal nit koo xam ne ku am taalibe koo xam ne yaakaaru ku dul Serigne Saliou damay wax ne dañu bàyyi yàqante bi nañu bàyyi yàqante bi doomu aadama bu ko yàlla dee teral kenn mënu ci dara dara dara dara dara ki yàlla teg loxo du bari coow ki yàlla suturaal du bari coow day def li muy def ñun yar rek lañuy ñuy ak nit ak dal te mom yaruna ma sha allah dal na ngalam tv ma ngi leen di euh, jox dig dajé benen numéro incha allah xam ngeen ma sista ji la talibé Serigne sallu bi namoon ngeen ma waye man ma leen raw fama jabula ma ngi la nuyu di la ziar di la kontaane bu baax a baax ayda tamit duma ko faté sama xarit la mais nak dama leen di wax ni gam gi lu ngeen ma gis may biré rek muna mo fi jaar sha allah ci teint bi ak prix yu ne muut xaar leen rek yeen bu leen yakam ci dara affaire ya ngi ñew ay ci di leen jox dig dajé kontaan na bu baax